ñu bëri duñ fa nekk ba bër set yonentu nag sallallahu alayhi wa fanaan ba julli jot bi fajar di jot rek dafa teel a julli fajar keroog am na ñu naan sax dafay julli dafa julli fekk waxtu jotut waaye demeewul noonu ndax fajar kenn du ko julli te jotut bëri na nag ci ñun ñoo xam ne bu ñu waree liggéey rek heure bu ñu jóg rek ne julli nañ fajar wala julli nañ suba rek pour ñoom boo yeewoo rek fajar jot na déedéet waxtu moom soo ko jullee te jotoo te jotut moom julli woo ki julli fekk waxtu wi génn sax moo tane ki julli fekk waxtu wi jotut ndax ki julli fekk waxtu wi paase am na bàkkaaru yéexee waaye am na julli nag ki julli te fekk waxtu wi jotut kooku moom julliwut ñaari waxtu lañ mën a julli fekk jotuñu ndax waxtu wa leen jiitu dafa bokk ak ñoom te pour ñu mën leen a julli fekk jotuñu dafay day fekk ñu leen di boole ak beneen mooy ba leen jiitu ni nga xame ne yonente sallallahu alayhi wasallam boole na timis ak géeye fii ci Musdalifa ci waxtu timis wala ci waxtu géeye ndax kuy tukki mën naa boole timis ak géeye ci waxtu timis mbaa boole timis ak ci waxtu wu mujj bi waxtu gee kuy tukki mën naa boole waxtu tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu tisbaar mën naa boole tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu tàkkusaan ñaar yooyu rekk nag lañ mën a boole waaye kenn du boole suba ak beneen waxtu mënoo boole suba ak gee mënoo boole suba ak tisbaar mënoo julli suba yi te waxtu wa jotut mënoo boole tàkkusaan ak timis mënoo boole tàkkusaan ak gee mënoo boole tàkkusaan ak suba tàkkusaan daal tisbaar rek lañ koy boole gee it timis rek lañ koy boole loolu lu mat bàyyi xel la waaye waxtu ku ko julli te fekk jotut léeg-léeg sax nga gis nit ñi julli timis ne ah diggante timis ak gee de moom une heure temps la rek wala trent minutes la rek boo jullee timis moom boo kii rek bu la neexee nga julli gee day tët gee yonent dafa wax ne jant bi bu sooyee li fay des mooy lu jaune loolu ngeen di gis moom ngeen tuddee shafaq bu fàddoo bu bu loolu sooyee xonk-xonk yooyu des ci sowu jant bi mooy wane ne gee jot na léegi nag boo xoolee application yu bees yi mel ni Azaan wala yenn application yi danañ la ko wax waaye Sénégal da ngay toog gis am ku print benn kayit rek ñu teg ko ci jàkka ji buñ ne sept heures mooy mooy gee mooy timis huit heures mooy nekk gee forcément sept heures cinq huit heures cinq xaw ma kuy print kayit yooyu waaye war nañ koo seet te ba léegi xamagu ma ko te waa senegal yi ba léegi xamaguñu bu këyit yi di jógee dañuy print rek di seetale ci jàkk am na nag jàkk yu ci bàyyi xel léegi ba ñoom toppatuñ ci am na ci jenn jàkk yu ma gis ñoom changé nañ loolu kon nag ñu xam ne fii ñu toll ak fiñ jëm ci kanam mooy euh, Muzdalifa bokk ci barab yi nga xam ne ujaaj bi àll fokk mu jaar fi bu fi jaarul dana fay dana kafaara barab bu rëy la nag toll na ci neuf mille neuf virgule nan lañ koy tuddee neuf virgule soixante trois kilomètres rëyaay bi toll na ko neuf virgule soixante trois euh, kilomètres lépp nag di Musdalifa nekk ci diggante Arafat ak euh, Mina yonentu sallallahu alayhi wa bu jógee aan Arafat jëm fa jógee foofu jëm minan ci diggante bi am na lu ñuy wax waadi muhassar waadi muhassar aw xuur la woo xam ne yonent bu fi yegsiwaan dafay dawal gëlëmam gi mu gaaw ndax xuru bugal la xur la woo xam ne fi la yàlla alagee woon abraha ak ñi àndoon ak moom biñ ñëwee ne dañuy toj si kaaba gi wàcce na ciw saar alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajcal kaydahum fi tadlil wa arsala calayhim tayran ababil tarmihim bi xijaaratin min sijjiil fa jacalahum ka asfin maakul kon nag loolu ab tënk la ci euh, Muzdalifa ñu bàyyi ci xel bu ñu ñëwee Makka bàyyi ci jàkk ji di masjidil haram masjidil masharil haram moo jàkk ja ca Minan ci kanam di masjidul xëyif seen diggante juróomi kilomètre moo ci war a dox yéen demoon namerata moo ñu jógee ci Arafat juróom-ñaari kilomètre ñoo ci war a dox yonentu sallallahu alayhi wa daan wàcc ca xiblaam ja yal na yàlla boole ñu dajale waat Muzdalifa boole ñu dajale waat Minan boole ñu dajale ci barab yu faccantikoo yii ci <coughs> Makka ak Madina ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa